jëwriñ yi ànd ak ñoom ak mboolem taalibe yi fi teew yépp sëñ bi sama yitte moo doon bi ñu génnee ci élection yi rekk ma ñëw seet si la santaat la gërëmaat la waaye nag xat-xatu jamono ak yitte yu bare bare ci bitim réew ba démb moo ci mujj ah, moo waral ñëw bi jeex war naa jóg nuyu ji këru diine yëpp waaye tey laa doog tàmbali fii ci yow ñëw nuyu si la ziyaara si ñëw bi nag mën naa koo tënk ci ay tomb yu néew ba ci jiitu mooy ñëw naa sëriñ bi ci sa kanam ngir santaat la gërëmaat la ci sa jàppale boo xam ni man de xam naa ko ndax lu wér la loo wane la waaye it lu ma gis la ñëw naa itam feddali la sama taalibe gën la joxaat suñu bopp gën a wone kóolute gi ñu am ci yow ndax xam sa yërmande ak sa ñeemta ci man te ne woon nga moom bul am benn jaaxle bul am benn jaaxle ndax lii nga ma wax ci yitte de kii nga xam ne moom lay liggéeyal muy sëñ tuba ci dëkkam bu tedd bii moom lay dënk say mbir kon nag ñëw naa sant la waaye santati sëriñ bi santale la it sëriñ bi ndax la waxoon gis naa ko te yàlla may na ma ci ndam loo xam ne coow amu ci weddi amu ci te it li ëpp ci réew mi seen taxawaay euh, feddali na kóolute googule moo tax war nañu ñëw it sant la la bokk na ci li gën a tax ma teew fi tey ginnaaw bi ndam li amee terewul dama woote woo jàmm ci réew mi woote it waxtaan ndax réew dañ koy waxtaanee mënoon naa yem ci ndam li eh, doxal samay xalaatu bopp ak doxal programme bi tax réew mi delloo ma kóoluteem ak kàddoom waaye waxtaan woote boobu itam ñu sant ci suñu borom bu baax ndax wuyu si nañ ñu rawatina këru diine yi ak sax kujjee politik bi yàlla def na tànn naa koo xam ne ci réew mi it am nañu yaakaar ci taxawaayam muy président Famara Ibrahima Sagna mooy doxal waxtaan wi te waxtaan wi dara taxu ko jóg lu dul lépp lu gën a mën a defar Sénégal te ñu war ko mën a waxtaanee ba déggoo si te lépp luñ si déggoo bi ànd si danaa jëfe loolu ngir njëriñal Sénégal loolu mooy waxu débat bi nga xam ne euh, dialogue national ñu ngi koy tudd te ñu fas yéene gën a defaraat rek taxawaay yi gën a defar liggéey bi gën a defar démocratie bi waaye gën a it sàmm kaaraange réew mi ndax kaaraange réew mi donc war nañ ci bàyyi xel te di leen ñaan ngeen ñu ci defal ay dog te xam ni li wër Sénégal tey lépp doy na waar te liy yàq ba ci diine ji bare na kon dafa am taxawaay bu mu laaj ci këru diine yi waaye aussi ci état bi loolu maa ngi lay xamal ni daal lépp lu ci war état bi moom dana ci taxaw taxawaay yi war ndax li jiitu ci suñu liggéey mooy yor kaaraange gu doy ci réew mi aar réew mi aar doomu réew mi ci jàmm ak salaam am nañ yaakaar ne lépp lu ci sa yitte ci fànn boobu danañ ci taxaw bu baax a li ci des itam maa ngi lay feddali lii ma fi waxoon bi ma fi ñëwee ci élection bi lépp lu tuuba ajowoo ci liggéey dara duñu ko ci wàññi ci li ñu tàmbali woon kon maa ngi ñaan nga ñaanal ma mandat bu bees bii may tàmbali ñu dugg ci ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamina mu nekk mandat boo xam ne mën nañ ci liggéey lu ëpp lañu defoon ci bi weesu te it su boobaa lépp lu war ci jàppale la sa liggéey bi incha allah fas yéene naa continuer di ko doxal na ma ko doon defe di ko fëddali njaboot gi yëpp di nuyu njaboot gi fi teew yëpp di leen sant yàlla boole na ma si ak ñu bare bare kon maa ngi leen di nuyu waaye bu ñu la nuyoo ziyaara la rek ziyaara boobu yegg si na si ñëpp maa ngi santati bu baax a baax di la gërëm loolu rek moo doon kàddu gi eh, di sàkkuwaat ñaan rek ak di la féddalewaat daal sama taalibe ak sama bëgg nga jàppale ma ci réew mi ndax sama yitte yëpp mooy lu jëmale Sénégal kanam ba ëllëg moo fi jóge ku ne dana xam jéego ya indi Sénégal fa ma ko fekk ak fa ma koy bàyyi loolu rek mooy li ma yitteel li ci des moom ñu bàyyi ko ci loxo yàlla maa ngi lay sant la gërëm Mbacke jërëjëf yàlla na nga fi yàgg it lool te ànd ak wér jërëjëf. jërëjëf président wax ji rafet na lool yar nga ko lool. am nag taalube lool léegi sëñ Mbàkke Abdourahmane dafa am ci kër gu mu yëggut ñu may ko tuuti rek waaw kay kon mbokk yi ginnaaw bu ñu dégloo kilifa réew mi mu yëkkati kàddu yu am solo yooyu wax li ko taxoon a jóg ñu maase déglu sëriñ Mouhamadul Muntaqa mi nga xam ne moo woote woon ñu wuy si ko ci teewaayu njaboot gépp